yéen a ngi ñuy topp ci Fafa TV. Fafa TV système bii nag moom la système occidental di diaboliser saa yu ñu nee rek ñu ne dagg loxo loxol kan ñu ne ki sàcc saa yu ñu nee rek ñu ne jam jam ñu ne mooy ki njaalo système bii ñu ne daggkatu loxo la. lu tax muy dagg loxo ñu ne def loxol sàcc la dagg sàcc bi du mos bëgg mukk système boobu ñëw. ni ñu leen ko dige woon institut Al Houda en ligne tàmbali na muy daara joo xam ne day jàngale alquranul karim ak lu ci aju ci internet bi en direct.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

wa sallallahu wa sallama wa baraka ala ashraf almursalin nabiyina almabuusi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahabatihi ajmain mbokk yi gannaaw bu ñu santee sunu borom subhanahu wa taala julli ci yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi defaat ab nafar bu ndaw tey ci tomb tomb boo xam ne suñ borom moo ko digle mu bokk ci biir ndiglem yi waaye muy tomb boo xam ne itam mën nañu wax ne ci la dund bi taxaw muy lan ak maandu li tax nag ñu ñu tànn tomb maandu mooy ay seetlu yu nu am ci fan yi ak weer yi ni nuy doxalee maandu ci àdduna bi rawatina ci sunum réew mu wuute lool ak na ko suñ borom digalee woon subhanahu wa aw nit di jëfandikoo li ñuy tuddee maandu pour doxal seeni lépp seen lépp maanaam seen mbooleem mi bëgg-bëgg moo xam nag bëgg-bëgg yooyu jub na wala jubadi na waaye daal baatub maandu maandu nag ci gàttal mbokk yi moom ngeen di tuddee justice moom la ñuy jëfandikoo ñoom ñooña ci sottalal seen bopp lépp luñ bëgg mu sotti ci seen kanam ak di ko sottalal wu ñoñ waaye it ci waxtu woowu gis nañu baat bii di justice encore ñu koy jëfandikoo waat ca geneen wàll ga ci anam goo xam ne soreyoo na lool ak ni ko suñ borom digle woon ndax wàll gi ci des moom seetlu wuñ am nañ àq yeyoo nañ àq wala amuñ ko wala yeyowuñ ko jamono bu nekk li luy tuddee ak maandu mu ngi nekk aw gangal maanaam mu ngi nekk ak tooñaange ci seen kaw te waroon a nekk maandu ci seen kaw looloo waral ñu tànn xutba bi tey def ko ci fànn googu dañuy wax nag ne alhamdulillahi rabbil alamin bin doxee ba fekkee loolu ba gis justice ñu koy jëfandikoo pour gaañee ko aw gaay am mbooloo mu yaatu ñu di leen ko gaañee di leen ko toroxalee waaye itam pour protéger ko aw nit ci lépp luñ bëgg moo xam jub na wala jubadina dañ naan alhamdulillah biñ fekkee loolu ndax suñ borom ndax ñoo waxoon ne luy am la bu ngeen fi bàyyee njubam mii ak maandu gii mu digle feneen fu ngeen mën a teg seen tànk lii la leen di jural moo tax sunu teggee sunu tànk foofee gis lam waxoon ne moom la jural day gën a dëggal sunu ngëm ci yàlla subhanahu wa taala xam ne lam waxoon rek dëgg gën koo dëggalaat nag wa man asdaqu min allahi qiila suñ borom dafa laajte ne ma ma mas ngeen a gis ku gën a dëggu yàlla wax duñ ko mës a gis wax yàlla rekk ay dëgg maandu nag aw yiw la woo xam ne la ko tax a jëg mooy yemale ñépp ci kanam yoon yemale leen ci bu ñu leen di àtte yemale leen ci bu ñu leen di jox seeni àq loolu moo dig maandu nga xam ne ñépp yemoo ci ci kanam yoon waaye ñëpp yemoo ci li ñëpp bokk loolu moo dig maandu ci gàttal boo ko doon tënk njàng miñ bokk ñun ñëpp ci yemoo fa doomi président di jàngee fa la doomi sàmm bi di jàngee loolu moo dig maandu waaye soreyoo na lool ak maandu cim réew fi sama doom di jànge man baadoolo bi doomi ministre bi ak doomi président de la république du fa jàngee loolu sore yoo na lool ak maandu sore yoo na lool ak maandu fa may fajoo maak sama njaboot ki ma dénk sama réew dénk ko sama am amu réew buy fajo moom du fajoo foofa feneen lay fajoo ji maandu wa di rawut loolu maandu wa di rawut bu diw sàngam dafee jéeya mbooloo jóg ne def na jéeya de def na ko def na ko te ña ko wax nekk ci réew mi ñu war leen a woo ne leen feeñal leen lu tax ngeen na diw mii def na jéeya yoon du leen woo mukk feeg diw mooma ma nga am relation bu baax ak li nga xam ne moo saytu maandu tey ci réew mi kenn du ko woo nañ ne luubal na nangam luubal na milliard fukki milliard 92 milliards ci gàttal luubal na junni milliard kenn du ko woo wala buñ ko wooyi dañ koy wëccaat mu dem ndax lan dafa bokk ci ñi nga xam ne ñoo téye li ñuy tuddee maandu ci réew mi waaye yow mi nga xam ne nag da ngaa loolu su ñu dee ne toj nga pare-brise jàmbur pare-brise rek la laa wax de jàmbur ba sax yóbbuwul la ci yoon de procureur danaan dem leen andil ma ko dégg na ne rek toj na parabirus jàmbur dem leen andil ma ko ñu àgg tënk manote ñëw jébbal ko waa xanaa kooku toj parabirus jàmbur bi te jàmbur ba kalaame wut ko de dub citoyen moom kenn kalaame ko waaye nee nañ dem leen ngeen tënk andi kii nag ñu tuumaal ne 93 milliards xanaa moom def citoyen ba tey jii mu ngi doxi soxlaam am réew warta doxe noonu buñ demee nag ba àgg gisum réew muy doxee noonu te réew mooma ñu yàgg alerte ne sàllaaw fii la jëm si ci maandu wa di fii la jëm si te la taxoon ñu di ko waxit it moo di suñ borom a ko wax ñu dem ba fekkee ne agsi na fa tey alhamdulillah yàlla wax na dëgg xanaa loolu war naa nekk su boobaa ak jàjj ci ñun gu nuy jàjj wan ñu ne ah fi ngeen jaar du fa te feeg yéen fa jaar nag nii rek nii rek boo tojee pare-brise ñu àgg tëj ndax danga nga àndul ak bi fi nekk buñ yaakaaree ne sax def nga yaakaar rek comme sama kaa man te yaakaar jooju sax man gëwuma ne yaakaar nañ ko dem leen jëli tënk leen indi ñu teg ci kaso bi ñetti at yu manqué tuuti ci weer lu tax ñu ne dañoo yaakaar ne moom dafa laaleeg nangam ki la wóor nag ne laale na ak nangam moom nga wëcc ko mu libre loolu moo dig màndu loolu moo dig màndu loolu mooy justice loolu mooy la démocratie loolu mooy république bi ngeen gëm ñun nag dañ daan déclaré na jamono bu ne ne gëmunu république gëmuñu démocratie gëmuñu socialisme gëmuñu communisme yii gëmuñu ci lenn ndax danoo gis ji yim def ci àdduna bi mboolem guerre yi takk ci àdduna ci tur yii lañ ko taale dana feeñ tuuti ci biir xutba bi incha allah kon mbokk yi ñun ñëpp ñi gëmoon yàlla subhanahu wa taala te daan wax ne fii la réew mi jëm agsi na fi nañ ne alhamdulillah mën naa am prendre mën naa am danañu xoolaat boog suñu bopp def li ñuy tuddee prise de conscience walbatikuwaat tegee ca yoon yàlla ñu ko yàlla wërsëgal bu ko defee nag mbokk yi ah, ak maandu danoo war a gëm ni ki nu digal nañu tey la ajjuma dox leen ca jumaa ja ngeen daje fa joxe waxtu wi imaam taxaw def xutba bi ki digle lii ñi ko def diglewaat ne woor leen ñuy woor asakaal leen ñuy asaka aji leen ñuy aji kookoo digle maandu wàccee ci yonentam sallallahu alayhi wa sallam mu nekk njàng mu set wicc leer nañ ñi yonent bi alayhi salaatu bi muy dem maanaam laata muy dem boog daf ne bàyyi naa leen ci yoon woo xam ne ni mel dafa mel ni xàll wu weex tàll xàmmeewul guddeeg bëccëg ci leeraay ñun yoon wu leeree noonu lañu fi fa yonent bi bàyyil sallallahu alayhi wa sallam mu wér ñu ne bu ci lépp jaaroon yii nuy tawat yépp du fi am mu nga ko maandu nag pour mu am dafa am ñetti yëf yoo xam ne dana ko fekkee moo tax lislaam day yittewoo ñetti yooyu pour mu am ci ab société société ba ña ko séq faaw ñu goreel leen ci seen biiri bakkan ñu ne lan mooy goreel nit ki ci biir bakkanam mooy ñu goreel ko ci jaamu keneen ku dul boromam subhanahu wa goreel ko ci yëg yëgune ne am na keneen ku yor njëriñam mbaa loram goreel ko ci yëg yëgune am na keneen ku yor dundam mbaa faatum wéram mbaa feebaram nit ki il faut mu gore ci yi bax ba mu yëg ne du buuru réew mi du ministre la justice wala de la santé du xalif général kenn yorut ci sa dund kenn yorut ci sag faatu kenn yorut ci sa wér kenn yorut ci sa feebar kenn yorut ci sa am kenn yorut ci sag ñàkk loolu la ñuy tuddee at tahrirul wujdaani maanaam goreel sa biir pour ñu libérer jaam ñi ñu am liberté bi ñuy wax naan liberté liberté maa ngi koy dégg ci mbeddi France yi ñu ngi yuuxu rek naan liberté liberté da ngeen ko yéex am parce que jaaragu leen yoonu liberté pour nit ki libre il faut mu nekk jaamub yàlla kese yàlla ñu ko yàlla def loolu la islam di njëkk def nag moom ñaareel bi pour nit ki libre nit ñi libre faaw ak yee am seen diggante dootuñ xàmmee doomi kee ak kii dootuñ xàmmee ku ñuul kee ku weex ki dootuñ xàmmee ku juddu wax làmmiñ wii mbaa ku juddu wax làmmiñ wee ñépp yemoo ci kanam yàlla subhanahu wa di jàmm batub jaamu ñu tënk ñun ñëpp moo tax mu ne ëllëg bu ñuy dekki it in kullu man fi samawati wal ardi illaa aati rahmani abda jaam lanu fii ñoo ci yemoo ci njaame ñoo bokk nun ganee àdduna ñun ñëpp ci ay liir bàyyi ko ci biir yaay ya bokk yemoo ci ne bi ñu ñëw xamuñ dara bokk yemoo ci ne suñ borom subhanahu wa moo ñu jox bët yi nuy jàngee ak nopp yi nuy dégloo xam-xam bi ak xel mii ñuy jàppee xam-xam bi ñoo ci yemoo képp ñëpp ci yemoo mu dellu ñu yemale ne nag ci ëllëg it nag ka gën a baax fa moom ajuma ko ciw tur ajuma ko ciw sant ajuma ko ciw melo benn nattukaay rek laa teg ci seen kanam muy lan ku gën a ragal yàlla dana ñu yàlla wërsëgal ragal yàlla bu boobaa ñëpp dañuy yemoo ci li fi ne li ñëpp bokk mhm. ñu ne nag su boobaa li ñëpp bokk bala cee kenn am luñ koy jagleel lu bokk ak la ñuy jagleel kee nañ jox ñëpp ba ñu mën a dëggal seenu dund ci kaw suuf lu mu tuut tuut loolu ci la ñuy teg maandu ñëpp yemoo ci lañ bokk gis nga système salarial bii nga xam ne ci la ñu ci la ñuy dund depuis l'indépendance wala avant l'indépendance ba bi ñu toog système bu jeng la système gënu koo jeng ndax système sélectif la boo xam ne danaa yéen ñëpp li ngeen bokk ki may xëyal man administration dana am lu ma la ci jox waaye yow mi nga xam ne nag xëyaloo ma ca sa tool ngay xëy wala ca sa eh, place privée ngay xëy su nuy séddale bokkoo moo tax fii ngay gisee nit ku juddu bokk ci réew mi ñuy séddale li réew mi bokk muy juddu di màgg ba màggat ba dee kenn mësu koo dagg daggal ab saleer ne ko lii mooy sa àq ci réew mi waxoon nañ fii bis ci xutba ne lislaam xamut loolu lislaam li muy njëkk a def mooy nañu jox ñëpp ba pare ñëpp yemoo ba ñëpp am li nuy am ba noppi bu boobaa nag ñu seet ne ah diw mii kat day xëyal administration bi te administration sunu administration la ñu ne nañ ko jox nag bu boobaa leneen lu kii dul xëyal boppam di am waaye fekk na lañ yemoo moom ñoom ñëpp yemoo nañ ca cib salaire ñu door a seet ne kii lay xëyal mbooloo mi ab jàngalekat la ab docteur la ministre la ñu ne nañ ko yokkale tuut mu xaw a dabante kee nga xam ne moom itam day xëyali boppam ca marché ba ok loolooy dëgg loolooy maandu am maa réew moo xam ne ñay xëyal système ba rek ay fayu ña ca des duñ mos a fayu damay wax ne loolu fa la maandu di mën a yem pourtant bu ngeen demee Europe am na fa réew yoo xam ne ñoom ñoo ñu gën a maandu ci fànn googu ku juddu rek am na àqam ci réew ma ku juddu rek àqam ci réew ma da koy fekk si jaadu woon na fu mel nii ñu ne kon faw yemoo am ñu yemale ñëpp ci li ñëpp bokk suñ paree nag kenn ku nekk la muy xëy ak fa muy xëy moo ko moom jox ko ci lay àqam nangul ko ko ñu ne ñetteel bi ci am réew mën a doon ñu libre maandu mën faa dox gannaaw bu ñë ñëpp yëgee na jaam la ñu ñoo yemoo ci kanam yàlla bu saawaat waaye itam kenn ku nekk libéré wu ndax ku libéré ku libéré wul mënul wax dëgg ku libéré wul ci boppam ci biiram mënul défendre dara moo tax ñu ne kon ñetteelu ponk bi pour am réew justice mën faa am mooy fawwu li nuy tuddee solidarité sociale daf fay am ñëpp nag kenn ku nekk yëg ne maay ka ca des buñ tooñee kee rek damaa war a jóg damaa war a jóg soo yëgee ne teg nañ kilifa loo xam ne yelloowul ñu teg ko ko ngay damay jóg xeex nañ ko teg lu tolloog lam def waaye itam nag kee nga xam ne def na lu mel ni li kilifa def di député nañ ko teg ciw yoon comme niñ tegee kii ci yoon looloy dëgg soo yëgee ne am Assane Diouf wala keneen ku ñu tuddee eh, gii mari keekat dóor nañ ko te waruñ koo dóor ci yoon nga jóg taxaw ne kenn waru koo dóor nañ ko delloo ak xam toj na paraas bi bi bi sa jàmbur procureur woo na ko ñun ñëpp war a jóg ne procureur boo wooyee kii toj paraas bi su jàmbur teg moom kalaamewut ko woowal kee ñu wax ne yàq na sunu 93 milliards pare-brise bokkul ak 92 milliards ñaari jiyee yi nañ leen gam-gamle te kee kenn la yàqal kee nag ñun ñëpp la yàqal mbooloo mi la yàq 92 milliards ñu bokk ñëpp ko bokk. ñu déggaat ne ka ca des luubal na junniy milliards nañ woo ñëpp ciw yoon loolu nag woote booba ñuy woo ñëpp ciw yoon ñëpp ci war a taxaw dimbalante ca. feek société amuñu solidarité sociale bu mel noonu ci seen biir ak maandu du fa mos a a am ndax ka di jiite yoru yetam bu ragalut yàlla danaan fii kat lu la neex nga def ko ki nga jiite ndax ñim ko bokkal dañ naan tekk di ko seetaan moo tax lislaam xamul seetaanante système bii nag moom la système occidental di diaboliser saa yu ñu nee charia rek ñu ne dagg loxo loxalkat ñu ne ki sàcc saa yu ne charia rek ñu ne jam jamkan ñu ne mooy ki njaalo foofu na la ñuy tëjee suñ ba système bi ñu ne daggkatu loxo la lu tax muy dagg loxo ñu ne def loxol sàcc la dagg sàcc bi du mos a bëgg mukk système boobu ñëw te nag nanu xool ki yàlla yónni woon système boobu ñaata loxo la dagg pour ñu xam dëgg-dëgg système bi ñu yor maandum ak capacité bi mu am ci gérer dund doomu aadama yonent bi alayhi salaatu wasalaam àtte na Makka masafa Medina ñaata at fukki at laaye bi bi mu wàccee ba ni mu faatu ñaata loxo lañ fa lañ fa dagg dañuy tuddee ay cas cas de vol ñaata lafa ñeent allahu akbar waaye ñun ñëpp war wax allahu akbar ñeenti loxo ñeenti loxo lañ dagg diiru dundam càcc jeex fa lu waay liggéeyati yaa moom système boobu moom la sàcc si di diaboliser ne na fi jóg pour ñu mën a sàcc te kenn du leen àtte mu jeex boo ko doon gàttal boo ko doon tënk ñeenti loxo alal yi yëpp lew yeewal ganaar yeewal xar yeewal fas yeewal loo bëgg a yeew yeewal yaral kenn du ko laal lislaam a tey nag waxuñ waxuñu xam nga fee dañ ne diiru dundam yépp ñeent ñoo ñoo njaalo astafirullah maa ngi doon wax ci njaalo de ci sàcc jërëjëf ñu dagg seen loxo léegi nag nan laaj am na sax ñu wax ne benn loxo lañ dagg benn loxo képp lañ dagg diiru dund yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tey nag ñu laaj càcc càcc ñi koy def li ciy loroo ci àdduna bi ñu dem di leen kalaami ci yoon police mbaa gendarmerie clare ko ñii loroo ci càcc ñaata la 2020 bii nga xam ne moom la ñu génn càcc gi nga xam ne dafa ànd ak violence boole dóor rey toj màbbu tiire dem na ci 753 personnes 753 000 personnes gam-gam leel gam-gam leel soxna yi nga xam ne dañ leen a violé ñu dem déclarer ne dañ ñoo violé ñii ñu déclarer seen bopp ñii dañ leen a déclarer ndax dañ leen a rey leen ñaata la deux cinquante mille victimes ci lenn ci ay statistiques waaye am na beneen statistique bu ñu gis mu joxe sept cent waaw 757 000 victimes de viol viol nag mooy koo xam ne danga ko ko da nga da nga jaay doole soxna su néew doole nga jaay ko doole ëpp ko doole not ko ci jëmmam loolu mooy viol bokkul ak nag li ñuy tuddee zina zina moom buñ mënuñoo kontukaay zina moom par 24 heures ay millions de cas la waa ñaari système yi bu ci gën a baax pour l'humanité ñu xool nag système bii nga xam ne nii la tasaaree njaalo ba nit ñi miin ko ba àgg sax ci beneen mbir mu gën a garaaw muy viol ñu ne nombre bi ñoo ci loro ndax daf leen a neexul dañ leen ko def te neexul leen ñu xool nag ñaata doom aadama ñooy jëlee feebar ci njaalo googu ak homosexualité boobu kooku ay millions yi doomu aadama ñoo ciy feebar par at ay millions ci ay doomu adama te suñu waxee rek ñu ne bee day dagg loxo wax naa leen ne diiru dund yonent bi sallallahu alayhi wasallam benn loxo lañ ca dagg ñenn ne mat na ñeent diiru dund yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñeent képp lañ àtte ne nañ leen jam rey leen ndax dañoo njaaloo ñeent képp ñeent système bi mooy système bi jig doomu aadama bu ko defee kon mbokk yi dama naan yii nuy gis activistes yi fiñ ko jaaree bëgg koo faj du fa coalition yii di jàppante fiñ ko jaaree bëgg koo faj du fa fenn képp lañ ko mën a jaaree pour faj ko mooy dellu si waat àla xasirati maanaam dellu siwaat ci ñagub lislaam islaam ñag ñu ñag sunuy jëmm ñag sunuy njaboot ñag sunuy am am ñag sunu honneur am justice bu dëgër boo xam ne mooy bi bi doon taxaw ne wallahi law saraqat fatimatu bintu muhammadin sallallahu alayhi wa la qataa muhammadun yadaha loolooy yemoo ci kanam yoon ci almaratul ghamidiyya daf leen ba ñëwee di ko bëgg a tinu mu ne leen ma ne noppal leen seen bopp système bii ma leen indil sama doom di fatimatu bintu muhammad sallallahu alayhi bu sàccoon tey alali jàmbur man may dagg loxo moo tax loxo ya mucc nañ bakkan ya mucc nañ am na benn seetlu bu ñu def muy juróom benn téeméeri at yi nga xam ne lislaam moo reeñee ci àdduna bi nombre bi nga xam ne dagg nañ seen loxo paasewul fukki nit ak juróom-benn càcc fukki nit ak juróom-benn juróom-benn téeméeri at ñun nag tey càcc googu nga xam ne juróom-benn téeméeri at juróom fukki loxo ak juróom-benn lañ ci dagg par bis moom mu ngi rey ñaata bakkan moom càcc gi ay gàng ay mbooloo ñaata bakkan la ñuy rey par bis mas nañu wax fii ne Amérique gii dong. 27 homicides par 24 heures la rey bal mbaa jam mbaa beneen façon rey gam-gam la leen nag ñaari système yi lii moo waral ñi xam système bii sikki sàkkaatuñ pour militer pour mu dellu si waat ci kaw suuf yow ma xam système bee nag militaire pour ce système dellu si waat ci kaw suuf pour mu reñe waaye bul ñu xañ ñu nit suñ àq ci militer pour suñu système bu maandu bii mën a aaree ni dund bi dellu si ci kaw suuf yal nañu yàlla delloo si lislaam hada waaxiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin allahuma salli wa sallim wa barik ala nabiyina muhammadin wa ñu ngi ñëw fii ci benn village bu ñuy wax Booli Kër Mandaw booli Kër ndaw ñu fekk fi nag suñu benn mbokk ci lislaam mbokk ci pas-pas euh, mu nekk ci benn xat-xat boo xam ne jombul kenn ndax wér ak tawat ñu ànd waaye xat-xat bi nag dafa wàcc ci kaw soxnaam ñoom ñaar ñëpp tamit ñu nekk ñoo xam ne seen yëngatu guddeeg bëccëg ci njàng la aju ak ci góor góorgóorlu ci alquran ak sunna yenent bi sallallahu alayhi wa sallam nattu bi moo di ne sama soxna ci boppam moo tawat toot bi yàgg na lool te metti na it lool depuis kañ la woon tawat bi mën naa wax ne bi ñu gisee feebar bi faju nañ lu yàgg sax waaye fi ñu découvrir feebar bi xam dëgg-dëgg feebar bi lu mu doon mhm. depuis 2016 la 2016 ba léegi ba léegi mhm. lañ découvrir feebar bi li mu doon. Hmm, feebar bi lan la. feebar bi moo di ne. Hmm. ci yaxu pooj bi. Hmm. fi mu korosante ak yaxu ndigg bi. ci bopp yax bi moo bënn. loolu ñu ngi ko xamee gannaaw bi nga xamante ne. dem nañu hôpital Fann. ci benn centre bu ñuy wax ordre de Malte. ci biir hôpital fan la nekk. ay orthopédistes ñoo fa nekk di faj. bi ñu demee foofu ñu rajo ko. gis ne problème fémur la am hmm. te moo di ne yaxu pooj bi hmm. fi mu korosante ak yaxu ndigg bi hmm. bopp yax bi dafa bënn mu àndil ko jafe-jafe yu metti ci dox activité yu bëri mënatul ko daan na jàngale sax waaye mënatul euh, continuer activité yooyu man mii ci sama bopp mën naa wax ne lii gën a tax ma démissionné fi ma doon jàngalee pour jàppale ko la. Euh, lan lañ leen wax ne mooy coût bi nga xam ne ci lañu ñu mën a defee opération waaw léegi bi ko docteur bi xoolee ba pare. Hmm. ba jox ñu résultat bi. nañu hmm. kii daal faaw mu def opération. Hmm. ci laa ko laaj nag ne ko ah opération bi moom nu muy demee. mu ne ma ah di nga préparé de ak doole. ma topp ko di ko laaj mu ne ma daal euh, opération bi daal dana dem ci lu mat un million yu teg. foofu jaaxle naa trop. jaxasoo naa trop. Hmm. ndax euh, yàlla deful. Hmm. loolu nekk ci man. Hmm. deful tamit loolu nekk ci sama gannaaw maanaam ci samay bokk. waaye nag xam naa ne jafewut yàlla. ndax ñàkkul ne am na ay mbokki jullit yu mu ko teg ci seen loxo. dégg euh, toll ci un million cinq cent quarante mille. mooy moom moo nekk ci facture yi. bii mooy cinq cent. 540 mille boobu mooy 540 mille léegi 540 mille yi lan la. ñu jog nag pour euh, soñ suñu bopp soññ suñu mbokk jullit lu ko waay mën a dimbalee euh, te yàlla tax ci mu mën a faju ba delluwaat ci néegu sëyam delluwaat ci ay activité am euh, ñoom ñaar ñëpp nag yàlla dogal na xam nañ leen bu baax. ndax ñoom ñëpp ci suñu école bi ma tudd léegi bi may commencé foofu la ñu jàngee. Eh, ñoom ñaar ñëpp ñu ngi fa commencé ci sixième secondaire sixième secondaire ba terminal ñoom ñaar fa la ñu amee seen bac te sixième secondaire lañ fa commencé donc xam nañ leen bu baax eh, ñu yaru lañ ñu am diina lañ lu waay mën a lu leen ma la mën a jàppalee na ko def te yàlla tax wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. allahumma salli wa ala alihi wa sahbihi ajmain wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu yéen a ngi ñuy topp ci Fafa TV Fafa TV